Cheikh Ndiaye président du groupement chauffeur lu lourds Kaolack coordonnateur syndicat Synac Trans Kaolack. waaw solo daje bi xam nga fan yi dañ dégg ay rumeur yoo xamante ne bii ñi ngi wax euh, ay wax yoo xamante ne bii ah, ak li am du benn parce que su fekkee yow benn organisation boo xamante ne bii dina am te amoo ca quatre membre ko jiwoo participation ci sa ci ci contribution ba ñuy def ko jiwoo fa amoo quatre membre amoo droit wax fa amul doo wax ci ci organisation boobu dara nit ki nag su demee bay wax naan man laa jeex te yow xamoo règlement intérieur xamoo kañ la def ensemble général renouvellement bureau le secrétaire général bi ñu ko bi ñu ko fale ak ak léegi yàggut am na date dañuy def renouvellement tas bureau bi lépp man maay président maa leen oréñal yéen léegi tas leen bureau bi même man man man Cheikh Ndiaye wàcce leen ma ngeen falaat yéen ko leen ko leen neex mais chauffeur ñoo d'accord ci lool

oo ma wala nga oo kenn ci askan bi te te lijjantiwuñ chauffeur yi dëkkul Kaolack sax bopp ñu ngi leen di defar ñu ngi ñu ci ñoom parce que regroupement du question bi regroupement bi rek chauffeur regroupement rek intervention parce que man chauffeur day am problème ndar ñu ooma ma oo président ndar ba mu lijjanti ko kon booy def intervention di nga def intervention ci sa regroupement di nga def intervention ci chauffeur boo xam sax fi élection yi dans nee naa le mandat reste un an et quelque un an et

kon da ngay dugg ci domaine boo xamuloo ko da ngaa dugg ci domaine boo xamul convention Sénégal Gambie les deux ministres de l'intérieur ñoo ko signé mais accord baa ngi fi ak man oto Gambie am na droit ñëw Sénégal saa de fii Sénégal dem Gambie oto Sénégal bi am na am na droit dem Gambie saa de fa indi Sénégal mais oto Gambie bu ngay bu rangee Banjul bu bu demee ci tableau Gambie ba tuuram jot mu war a saa ay quelques personnes yoo xam duñ ay chauffeur duñ ay responsable baare ko coono bu demee Gambie nu muy dem ñoom ñii ku ci dem Gambie Gambie ay créé la te xam nga Sénégal li muy tolloo ko su ne Gambie duñ ko maye gis nañ fi accident problème malien bi oto bi ñu fi lakkoon ñaata oto Sénégal lañ la xam nañ ko y a plus de cent et quelques Sénégal lañ lakk parce que la moo gën lii mooy dugg ci domaine boo xamul tableau Gambie mu su fee ñàkk a jógee

nii léegi président nee nañ nañ nañ nañ nañ tasaat bureau bi ñu bàyyi ko fi moom rek mais dama jël parole ne ko non Pape Yor bu ma bàyyi tasal bureau bi yëpp commencé ci man ba ci suuf yaakaar naa ñu ñëwoon nga fa. tasal bureau bi commencé ci man ba ci suuf bu doon xam bu doon ku ma protège du ma wax lool tasal bureau bi ba ci ba ci kaw ba ci suuf ña fa nekkoon comme ay chauffeur bi ñu nee vote 98 pour cent deux personnes ñoo contre 98 dañ dañ ma woteel mandat bii di ñëw dama ni. avant mandat bi egg sama ma xamal la xale yi ku ci taxaw man nga doy ma ma jox la pare ma loolu pour élection waa di kii non loolu pare ma ko ku ma ci wan ni woon fu woon mais nag ku yaakaar damay sànni règlement bi da ngay na sa naa am na ñëpp important ñu njëkk attaqué règlement bi ba mu gën a appel ampleur te jàll que dëgg rek moom mooy dëgg. loolu sama explication mën naa ci expliquer lu bari parce que ñu génn di wax ci loolu. ñooñu dañoo bokkul ci regroupement bi ay élément la yoo xam ne ñoom xamuñu fu ñu bokk Baye Niass boobu musul jënd suñ carte membre musul participer assemblée générale musu cee ñëw bon moom euh, objectif am yëpp mooy lu disloquer suñu regroupement ci loolu la taxaw depuis plus de 15 ans qu'on se dise la vérité su fekkoon ne ñun ñi nga xam ne ñoo seq regroupement bi moo am benn parti bu génn commencé critiquer di laaj affaire gestion on peut dire mais ñoo xamante ni bokkuñu suñu gestion vraiment waruñ ko mën a xam

li mu nekk du dëgg du yoon wër na yàlla yàq moo ko tax a jóg booy yëpp xam nañu def waaw booy. da ngeen koy porté plainte mais ah, mais su suñu su arrêté wul foofu lañ jëma moom. naa mu sottiwul ah. Euh, euh, devant devant la police dañ koy porté plainte parce que xoolal yow naka nga mën a jëlee xaalis boo xamante ni moomuloo ko yow kenn cinquante gardement mu ñu jox la ko nga ne ko fafet jaay ko gisuñu xaalis ba léegi. yow léegi laajuñ la ko fitnaaluñ la léegi yow nga ñëw bëgg ñëw fitnaal di jéem a yàq mais c'est du n'importe quoi nañ dëgg nañ waxal dëgg bon te moom dafay wax ci ay point yoo xam ne xamul ci lu bëri gis nga oto Gambie am na droit charger fii Sénégal yóbbu ko Gambie oto suñu oto yi booy yi dañuy dem ba Gambie di fa charger mango lu ne di ko indi fii mais li ñuy aaye mooy oto Gambie charger fii Sénégal wàccee ko Sénégal parce que boo demee Gambie oto Sénégal ñemewu faa charger wàccee ko biir biir Gambie moom li li ko tax a jóg yàq la tout ñun de yàq lañ gis ne moo ko tax a jóg parce que li muy wax dara amu ci gestion bi baaxul gestion bi lan fan la fàtte ki mu ci 3e mandat yo xamanteni chaque mandat day wax né day bàyyi day démissioner ñi ñëpp chauffeur yi yëpp ko naan do dem yañu fi doy. gaaree di fay mairie bon ci ñun jaaruwul parce que bon mais mënuñ ko bañ parce que amuñu garage actuellement pas mal d'années ñuy toog ak préfet gouverneur ku nekk di di di di solliciter problème garage demoon nañ fi ba préfet joxoon ñu ben piste bu nekk fi boru camp militaire mais mu mujj aboutir dañ ko mu mujj nanguwaat ci ñun amuñu garage on est obligé ñun li ñu mairie jox ñu ñëw tok fi ñu ñuy fay lo camion bu génn fay 500 francs ou 1000 francs mënuñ ko bañ ñu ci bëgg a yàgg xëy xale yëpp habitué woon nañ ko légui parce que bo fi taxawoon une semaine boy génn 500 francs nga fay fay loolu du dara ci ñun quant à nag toilette yàgg la fi li ci war ak yoy loolu mairie mom mairie mi nga xamanteni mo fi enquête sa xalis defe naa moom moo ko def propriété bi mairie bi nga xamanteni mom mo fi enquête sa xalis moko wara def kon suñu ne gestion bi je suis critiquer gestion bi fii na dem critiquer au niveau de la mairie mais pas ñun.